entre elles au plaisir de vous retrouver sur Sénégal 7 xam ngeen ni nag vendredi bu jot à partir de 20h dañuy toog fii di leen dégtal le meilleur de l'information di ci ànd ak mes chroniqueuses fidèles à l'émission muy Mami Samb ak kii di Oulay Mané euh, mais tey nag dañoo am deux autres invités muy euh, Ndeye Sow Leila ak ki nga xamante ni moom moo di Fatima Babol Diouf teewal fii euh, coalition bi di sàmm sa kàddu tey ñu fas yéene waxtaan ci li nga xamante ni moom moo di ponk yi gën a fës ci actualité bi dina ci bokk li nga xamante ni dina tukkee ci li nga xamante ni moom lañu dëkkmal muy législative mais également xam ngeen ni le président de la république dina présenter li nga xamante ni moom moo di programme am ni ki altine yem ak fukki fan ak ñeent ci weer bi ñu nekk dina bokk tamit tey ci ponk yi nar a waxtaane yeneen ponk yu leen soxal notamment reddition des comptes yi ak it convocation yi arrestation yi ni mel lépp tey en tout cas dina bokk ci ponk yu waxtaanee euh, sur ce plateau laataa ñu ci sore nag ñu nuyoo ak suñu ay gan ma dooree ko nag ak ki nga xamante ni euh, moom moo di Mamy Samb Mamy Samb yow moom doo gan ci émission bi. déedéet wax dëgg yàlla. Samb nuyu naa la nga béy di lool nag. waaw waaw jërëjëf waaye daf may dal nag léeg-léeg. xam nga léeg-léeg daf may daal léeg-léeg damay ubbi armoire bi rek mu daanu ma ne ko tey yaay dem yooyu daf may daal du daal nag souvent mais léeg-léeg ma fakastalu mu xaw ma daal tuuti ajaratu Penda hmm. maa lay nuyu bu baax di la di la ziar di am mbégte di ànd ak yow ci émission bi ni ñu koy defee saa su nekk tous les vendredis di nuyu euh, di ziar suñu gan yi nga xam ne ñoom la am tey ci mhm. plateau entre elles mhm. euh, Ndeye Leila Sow di ko mhm. nuyu bu baax di ko ziar di nuyu également euh, Fatima Fatima ah. non Fatima Babol Diouf waaw ah, boobu moom vrai ak original turu séeréer la mhm. voilà ñu koy nuyu bu baax di ko di ko ziar mhm. la retardataire ñu bàyyi ba mu yegsi ñu ba moom Ulay Ulay xam nga ah, yow nee la Mami man yow laaj ki mais bàyyi ma nuyu siis bi rek nuyu siis Ulay bi siis Ulay bi Yankoba boo ko mënee zoom siis bi mu nuyu siis bi comme ça sénégalais yëpp xam ne Ulay dafa tardé tey Yankoba nag daa bëri sutura trop alkalla defal kon nii Moussa nga xam ne bu ñëwee rek toog nii sama place du dëgg nuyu internautes bu baax yi ñuy seetaan ah ak euh, soppe yi ñu ngi leen di béggee bu baax euh, l' équipe technique également de Sénégal 7. Mhm. nuyu euh, borom kër gi. Mhm. ak soxna si si kër gi tamit. Mhm. moom namm naa ko loolu te gëj koo dégg j' espère qu' elle va très bien. waaw mi ngi si jàmm moom tamit nee na namm na la bu baax a baax. voilà j' en profite pour di ko nuyu bu baax ah. di ko di ko ziar. Adjaratou Penda. kontaan naa lool nag euh, Samb yoo xam nga ni bu ma bokkee yow plateau c'est toujours un plaisir Fatima yónnee naa la par occasion le comme ça nga mën ko partager ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa coalition Sàmm sa kàddu ñu mën a seetaan li nga xamante moom moo di jotaay bi laataa loolu mën nañu Ndeye Sow Ndeye Sow un plaisir comme toujours yow moom ci kër gi nga bokk temps yi nag maa bàyyi Ndeye Sow te waroon maa bàyyi gëj gis gis muy waaw euh, xaaral am naa ci benn boo xamante ni la temps nga nuyoo ma liiral la ko. Euh, yow nuyoo la mami maa ngi lay fay nuyoo. maa ngi lay euh, fay bu baax sa lay fay bu baax partagé bi ak maa ngi sama jaam yi. Hmm. Fatima Babol Diouf. maa <laughs> di nuyu seen téléspectateurs yi. Hmm. Penda. Hmm. c'est un plaisir de de de faire partie de ce plateau là. incha un plaisir partagé. góor ñi tamit boo dee jigéen ñi rek ñuy chamaayé wu lii tamit comme hier. <laughs> mais tegal des di ñëw ci émission bi dañ lay saw te loolu du yoon. di jaale la day dee bu gaaw. mais mhm. yàlla moom bu soxlawee. ko bëgg da ngay ñàkk. day mhm. jaale Sénégal. parce que mhm. elle a beaucoup pour ce Sénégal là. a employé des jeunes. Euh, rapporteur na lu bëgg Sénégal ñu ngi koy jaale ñoom Alsane Mbaye ñoom Adja Thiam. ñu ngi koy jaale tout tout tout le Sénégal et tout le monde entier. parce que elle a beaucoup fait te su ñu amee jigéen ju jàmbaare ñoom. jàmbaare wu woon sax génn àdduna dañ ko war a jaale. ak sama mu mu génn àdduna. ñu koy bokkam bokkam yeeg ñëpp di ko jaale Sila Abdoulaye Sila bi ngeen mm. bokk liggéey bi man caméraman nekkoon càmmiñam di ko jaale Sénégal yëpp daal boo limee da ngay di ko jaale waa bi euh, jox ko policeman mu joxul ma ko waa bi yëpp naqar ak bànneex nag ñoo ànd j'ai une sœur qui fête son anniversaire euh, mi ngi dëkk euh, Médina Anna da Silva c'était hier mais comme dañoo amoon naqar on pouvait pas lui souhaiter ça mm, on lui souhaite joyeux anniversaire mm. yoon mi ñuy jooy te noppeeguñu mm-hmm. magi Wally Seck mm-hmm. ngi naan ko dundal dundal dundal loolu dund doyul Anna da Silva Anna da Silva anniversaire à elle merci c'est gentil beaucoup de bonheur merci alors Ndeye Sow laataa may nuyu euh, Fatima Babol li ngay wax nii ci Jeune Afrique Euh, nee nañu selon Jeune Afrique Macky Sall va rester au Maroc durant la campagne pour les législatives l'ancien président craindrait d'être arrêté et traduit en justice à son retour au pays mais selon Yorodia qui est à Paris et qui a rencontré Macky Sall cette information de Jeune Afrique est fausse nee na nag stop à la manipulation mais en fait Jeune Afrique euh, ça fait deux fois de suite qui font la manipulation sur son excellence le président Macky Sall et on comprend pas le pourquoi qu'est-ce qui leur pousse à faire ça et Jeune Afrique kii euh, la boo xam ne euh, magasin magasin magazine wala magasin boo xam ne magazine ah tout le monde dañ ko doon xool di ko lire je sais pa à quoi ils et je pense que duñu liggéey ba toll fii quand même ñu bëgg a yàq seen bopp ay manipulation mmh. et même si le président de la République ne venait pas c'est pas parce que euh, il a peur wala dara wala que il a peur d'être arrêté kan moo ko fi arrêté soyons sérieux quand même mmh. il faut qu'on soit sérieux mmh. ñu ñuy wax lu sérieux voilà pour man manipulation Sénégal rek la yam nekkate c'est au-delà de là et encore Jeune Afrique quand tu dis Jeune Afrique c'est il faut que ñu ñëwaat ci en tout Fatima Babol Diouf un plaisir comme toujours à rappeler que ni yow euh, yaay représentante tey sur ce plateau bu coalition bi di Sàmm Sa également vous avez été investi yaa ngi ci liste bi su ma jumul à la quatorzième seizième position mm-hmm. euh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax tey di la dalal ci plateau bi di Entraide euh, maa ngi di fay bu baax a baax Binta Penda est-ce que nga <laughs> Penda Binta laa bind si sa si sa numéro déedéet kay Euh, Penda maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. di nuyu mami ma fekk fii. Mm-hmm. di nuyu sama fans bi nga xam ne dama koy seetaan chaque jour di reetaan <laughs> mi ngi noonu di nuyu aussi waa Agir mouvement Agir bu Thierno Bocoum. Mm-hmm. Euh, di nuyu aussi waa sàmm kàddu yi. di leen jaajëfal bu baax a baax ci wóolu bi ñu wóolu jeunesse bi euh, boole leen ci list pour ñu mën a teewal pour ñu mën a teewal askan bi ci assemblée nationale. ñu mhm. koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax. Mhm. Mhm. mais maintenant suñu caméra laa bëgg a xam parce que man fii rek laay xool ban mooy suñu caméra yow sa caméra bii la. waaw waaw bii la. sama sama sama honorable député bi ban mooy caméra am. sa honorable bii la. waaw moom it bii la moom it bii la maa ngi moom a bokk. waaw yaa ngi moom yéen a bokk. bi ngeen def bi ngeen baax na. maa ngi koy maa ngi koy wër rek léeg-léeg man ne nii rek. <laughs> tey nag plein air lañ toog moo tax fii xaw a tàng tudd kon sama ëppukaay bi deneen ma ko jéggi am na keneen koo xamante ni nag ëppukaay mu fas yéene wu koo génnee mami sàmm ngay wax du ma wax noonu da nga am fit de ah, ah, ko génnee rek xool ëppukaay ah. bi da nga am fit la ëppukaay bi amalu ko njëriñ ëppukaay opposition la moo tax <laughs> ban commentaire ngay def ci ci ci ci les jeunes Afrique bi de sur Macky Sall waaw je pense que en tant journaliste et loolu les journalistes du monde entier que nga nekk Sénégal nga nekk Afrique nga nekk partout dans le monde entier une information doit être vérifiée kenn amul euh, sañ-sañu jël information bu ni toll euh, def ko ci ab euh, magazine sans pour autant nga